bi ngay wax man li ma ci wax rek mooy senegal bari na ethnie ay xeet séeréer nga fi wolof nga fi tukulóor nga fi bambara nga fi lébu yaa ngi fi mbalaa muy leer nag man samay der samay jarbaat lébu piir lañu yenn todd lañu dëkk maag seen yaay bokk ndey ak baay ñu di ay lébu piir seen maama ne ko imaamu yenn todd kon lébu yi kenn mu cee gën dama cee bokk hmm. sama der da caa nekk mais man li ma bëgg a xam balaa ma wax il faut ma sëriñ maa ngi lay ziar il faut ma xam ci ban casquette parce que aussi il faut ma xam nan laa lay tontoo parce que man li ma mën a assurer fii tere bi ethnie bi gën a bi gën a organiser Sénégal c'est les Lébou ils problème bu nekk ñoom réglé nañ seen communauté ba ku nekk am nga loor ñuy ñooy sëriñ bi Serigne gën nga ñëw Serigne grand Serigne de Dakar. Mm. gis nga ji dégg jaraaf bi. Mm. dégg nga ji ndey ji réew. Mm. dégg donc ils sont tellement organisé que jàpp mu ni tey ils sont tellement intelligents. tey wax dëgg yàlla ku am Dakar ñu bu fukk nekkee Dakar juróom-ñett yi ñoo leen yaatal ci biir Dakar. mais ma wax aussi ne il faut ñu nangu leen man fa ma dëkk Sandiara ñu ngi may dégg sama maam bokk na ci ëpp na fa suuf lool mais am na suuf yoo xam ne tey. ay tëkku dëkk état ko jël jox ko ñu dëkk ci sama maama ko moomoon sama baay sa sooru maam sama baay ko moomoon waxuma sama papa ko moomoon soriwul Sénégal laa am na ci yoo xam ñun ñoo ko jël ba léegi mais xam ne état da koo dagg jox ko nit ñu dëkk ci ndax man fi ma dëkk tey fii sama papa ma dëkk fa juddoo ma fa mais que suufu bàyyi jàmbur la woon mais ma bëggoon a xam quand même balaa mën a continuer parce que quand même bu fekkee ndey ji réew bi moo doomu sëriñ la ku baax man yaakaar naa ni bokk naa ci réew mi ñi gën a nangul maam Limaamu Laay ñoo gën a gëm am naa samay raison xalif général bi li ma ko gëmee man rek maa xam dama ko gëm moom bëgg lool mais boo dee doomu soxna ñëw toog ak ñun il faut ñu xam ndax xalifa bi moo la yebal parce que bu la xalifa wax yebalee day am nu may waxee boobaa sama wax dama koy xam dama koy gérer ah c'est la vérité parce que man kàddu xaalis bi ci man waaw la tudd bu dee xaalis bi moo la yebal ma xam ne xaalis la boobu na may wax xam bu dee Serigne Ndakaaru moo la yebal ma aussi damay xam ni may waxee bu dee nag association bu ngeen créer rek di xeex seen gox ah man aussi damay xam ni ma waxee bu ma seen nga leeral ma man ma mën a kon nga baal ma rek mais nga leeral ma ci ban casquette ñoo la yebal fi ma soo di mën a xam li ma xalaat su ma nee nekk nga baal ma